asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé tey ñu am mbégte di ci euh, dalal ki nga xamante ne kon moom mooy ay euh, Aïssatou Diouf euh, madame Thiam nekk coordonatrice bu centre conseil ado bu pikin Guédiawaye ñu ngi koy dalal tey ci sunu émission di am mbégte di ànd ak moom madame Thiam ñu ngi lay nuyu. Adja Alimatou maa ngi lay fay maa ngi leen di fay. Mhm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Mhm. di kontaan bu baax ci dalal bi ngeen ma dalal. Mhm. tey ci rajo Rewmi FM. Mhm. Mhm, ñu am mbégte itamit di la dalal tey jii di la jaajëfal itamit ci disponibilité bi donc tey ñuy fàttali nii rek encore yow yaay euh, coordonnatrice bu euh, centre conseil euh, ado bu Pikine Guédiawaye madame Thiam donc nga wax ñu tey rek centre boobu nga présenté ñu ko. waaw ah, jërëjëf Alimatou centre conseil ado. sans compter ado pour adolescent ay jeunes la tudd. Mhm. kër ngi sosu. Mhm. depuis mille neuf cent quatre vingt quatorze quatre vingt quinze. ci programme bi ñu doon wax programme de développement de ressources humaines. Mhm. à travers politique de population. document de politique population. bi amoon ci atum mille neuf cent quatre vingt quatre vingt donc mu ngi ci anam yooyu. mu nekk centre conseil bi nga moo njëkk a sosu fii ci Sénégal muy centre conseil ado boobu Guédiawaye li taxoon ñu sos ko nag mooy fexe ci cadre politique de population boobu xool naka la ñu mën a jëlee en charge maanaam taxawoo wérgu yaramu ndaw ñi ndax xam nañ ne ndaw dafa nekk étape boo xam ne ci dundu aadama dafa xaw a xaw a jafe bari ay jalti jalti bari ci ay jafe-jafe yoo xam ne ndaw yi nañ ko jànkonteel am mm-hmm. ci seen yaram ak ci seen wàllu njuréel wala seen wàllu xel ci la état du Sénégal gouvernement du Sénégal xalaat ne war na ñoo taxawal lu mel ni centre conseil ado yooyu nga xam ne dañ fay euh, accueillir xale yi ndaw ñi mhm. su ma nee ndaw ñi mu ngi dalee adolescent et jeune dem ba vingt quatre ans dem ba trente cinq parce que jeune si suñu constitution Sénégal dañ ko considéré de dix huit à trente cinq ans mhm. mais kon ado yi dañ ko jëlaale en charge moo tax ñu wàccee suñu base ba dix cas 35. d'accord pour prendre en charge aussi bien mhm. mu nekk lu am solo donc mu nekk centre boo xam ne dafay dalal ay ndaw. ñu mhm. gis ne euh, fii ci biir Sénégal euh, lu ci bëri am na ay waxtaan yoo xamante ne parent yi du ñuy faral di ko waxtaan ak seeni doom. Euh, mhm. tey jii ba tax na xale yi peut-être duñu am confiance ak peut-être seen entourage di mën a wax ak ñoom yenn yi surtout lu jëm ci wàllu santé de la reproduction. Euh, tey jii mhm. yéen lan mooy seen relation ak euh, ndaw yooyu nga xamante dañuy ñëw foofu naka ngeen di def ba euh, mën a def li nga xamante ne moom mooy établir une relation de confiance seen diggante. ni mu ko waxee rek noonu la parce que problème bi li ko tax li koy métti mooy communication bi dafa amul diggante parent yi ak xale yi ndaw ñi. Mhm. lu aju ci seen wàllu santé de reproduction ni nga ko waxee muy wér gu yaram lu aju seen mbiru njur. Mhm. Euh, centre bi nag ci wàllu woowu li mu ciy def mooy dafay waxtaan ak xale yi dafay liggéey ak ay association association de jeunes wala association de femmes ay organisation yoo xam ne ñu ngi nekk di def ay activités ci biir population bi ñooñu ci si lañu ñoom lañuy ñuy sukkandiku ak ay per éducateurs yoo xam ne ñu leen di former mm-hmm. di dem fekki association yi foofu di waxtaan ak ndaw ñi di leen orienter ci seen wàllu wér-gu-yaram boobu de la reproduction loolu mooy wàllu euh, activité de sensibilisation yi mobilisation sociale yi ñuy def ci biir population bi jëmale ci ndaw ñi mm-hmm. beneen wàll na loo xam ne dañ ko wéer ci wàllu santé maanaam purement euh, médical CCA e dafa am euh, équipe médico-psychosociale lañ koy tuddee mm-hmm. ñoom ñoo nekk ci biir laboratoire parce dafa am laboratoire am technicien laboratoire boo xam ne mooy taxawee lépp loo xam ne analyse la ay analyse sérologique pour xale bi ndaw bi mën a xam statut mhm. sérologique am mën def dépistage xam moom wér-gu-yaramam ci fan la toll surtout ci wàllu infection yi parce que xam nga euh, ndaw dafa ànd ak euh, euh, jafe-jafe ci mbirum njur lu ma ko waxee sànq muy infection sexuellement transmissible yi mhm. te VIH sida ci la bokk réeyi asiatique yi bokk ci li nga xam ne gën naa tax bu gën a taxawal CCA yi pour mën a aar ndaw ñu mën a euh, bañ a jànkonte ak jàngoro yi ci daa boobu mm-hmm. waaw beneen wàll bi mooy centre bi am na sage femme sage femme bi mooy taxawee ndaw ñi na xale yu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi toll ci njur mm-hmm. yaa ngi bokk ay jafe ndax xam nga li ma ko waxee adolescente dafa nekk état boo xam ne dafa nekk euh, bu vulnérable ci xale bi dëgg la parce que xale bi du du mën a bañ yenn yi ñu koy góor ñi di ko di sàkku mhm. maanaam du ci mën a bañ léeg-léeg ko yegg ci moom mu mhm. am ay jafe yi mu koy jural ci wàllu wér-gu-yaramam su ko defee sage femme bi moom daf fi toog ngir xale yi mi nga xam ne ñu ngi jànkonteeg loolu mu mun di leen euh, saytu seen wér-gu-yaram di leen jox ay soy yi soxla su jaree ñu référence leen maanaam euh, yóbbu leen ci structure sanitaire hôpital wala poste de santé bu gën a am xarañte ñu yóbbu ko foofu mm. euh, loolu mooy li nga xam daal muy activité yi ñu koy mënee muy wàllu santé bi ak wàllu sensibilisation bi am nañ aussi assistance sociale boo xam ne ndaw ñi nga xam ne dañ jànkoonte ay jafe-jafe mm, ay traumatisme ak yooyu ay traumatisme ak yooyu. Mhm. dañ leen di boole ak assistance sociale yi mooy waxtaan ak ñoom ba indiwaat leen delloo si seen xel nga xam ne ñu nag intégré waat société bi parce que dañuy dem ba ñooñu dañuy mën ak dund sax da leen di mhm. bi moo leen di gunge moo leen di jëndi. di ak leen accompagner di waxtaan ak ñoom di jar mu dem ba ci seen biir famille sax di waxtaan ak famille pour que insertion bi mën parce que xam nga suñu culture léeg-léeg xale bu jigéen bu tolloo foofu dafay am lu ñuy wax rejet. Mhm. au niveau de la famille dañuy rejet au de la société. donc loolu ak euh, assistance sociale bi moo ci taxawu xale bu ndaw. mu mel ni kon tey centre bi dafa nekk benn lieu boo xam ne équipe pluridisciplinaire maanaam ñoo xam ne ci pàcc yëpp daal euh, mun nañ ci taxawu xale yi. mangoog loolu la lool la man. Mhm. la demee équipe pluridisciplinaire moo yu bëree bëri. Mhm. Euh, muy équipe médicale muy équipe psychosociale. muy équipe de d' animateurs les animateurs bi nga xam ne ñoom ñooy éducateurs tey bi nga xam ne ñun ñoo leen di former naka la ñuy transmettre message naka la waxtaan ak xale yi naka la ñuy wax duggee ci biir population bi euh, jàng euh, waxtaan ak mag ñi kilifa yi les délégués de quartier les parents loolu yëpp pour que mu nekk benn consensus boo xam ne adhésion de la communauté autour de la compagnement des ados jeunes mm-hmm. pour que ñu préserver seen santé aussi bien au niveau santé de euh, tey jii euh, ñu gis ne quand même aussi euh, ci beneen wàll bi mm. centre ado peut-être tey ñi nga xam ne comprendre ñu. lan mm. moo ko tax a jóg exactement mun nañu yaakaar ne peut-être am na yeneen lu nekk ci suuf walla genre xale yi dañ leen di xamal yenn yoo xamante ne daal naka sudul noonu ak yooyu donc ay mbir la yoo xam ne dañu koy gis dañu koy dégg yenn saa yi te day fekk ne peut-être défaut de communication moo koy waral ba askan wi ñu bari duñu xam njëriñu centre ado yi. exactement lan la tey jii wax nga ko léegi adhésion communauté yi dafa am solo parents yi mhm. tey pour ñoom ñu mën a bàyyi seen doom ñu mën a ñëw ci euh, xeetu bërëb yooyu noonu bu ko defee ñu mën leen euh, xamal foofu li nga xamante ne peut-être duñu am chance xam ko ci seen i famille mhm. yan genre jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci ci côté boobu waaw côté boobu liñ ci gën a jànkonteel wax nga ko sànq sax daanaka benn bi moo di euh, adhésion maanaam orientation xale yi ci centre bi fréquentation bi fii ci CCA dañuy dañu nemmeeku surtout mi Covid bi ñëwee ba léegi fréquentation bi dafa xaw a wàññeeku. Mhm. xale yi dañ daan ñëw parce que fii xam nga service départemental jeunesse mu ngi fii CDEPS bi. Mhm. dafay defaale ay formation ci ndaw ñi. donc chaque jour ci daraan fees dell ak ay xale nga xam ne nañ mën a defaale suñu activité ak ñoom waaye depuis Covid bi ñëw ba léegi fréquentation bi dafa wàññeeku. tax na suñu stratégie fukki maanaam dépistage bi ñu def fii ci laboratoire bi ak xale yi euh, nombre bi dafa wàññeeku bu baax a baax euh, loolu tam xam naa ne parent yi dinañ leen ci ñaax bu baax a baax ñu mun a euh, di orienter xale yi di ànd xale yi ñu CCA bi te xam ne liñ leen di offrir fii ci service soins yi te gratuit et on conserve maanaam du ñu waxal kenn ci biti ne kii jaar fi wala lii mooy jàngoroom su ñëwee nañ ko talal bu baax déglu ko déglu bu teey ànd moom ki nga xam ne mooy ay jafe-jafeem gunge ko ci mhm. euh, euh, leneen li tam li nga ne moo waral fréquentation bi wàññeeku dafa am loo xam ne nit ñi gisee nañ ko CCA mhm. mais bu kon xal CCA bi dafa ñëw ngir euh, maanaam dimbale xale bi ci ci moom boppam daal te fekk loolu taxul jóg PCA PCA dafa jóg ngir aar xale bi aar wér bu yaramam ba nga xam ne na màgg ci anam yu sell dina nekk mag moo xam ne nii ëllëg dina nga taxawee euh, famille am taxawee société taxawee askanam donc ci loolu ñu jaaree ko ci mbirum santé ñu aar xale bi ci wér bu yaramam mu ànd màgg ci wér ci anam yu sell la mm-hmm. waaw kon parents yi lañ leen woo rek ñu comprendre ne PCA dafa ñoom ñu jàppale leen ci yàpp xale yi mm-hmm. yor ni xale yi ngir xale yi ëllëg ñu nekk ay responsable mën a yor seen réew mën a yor seen njaboot ci anam yu sell mhm. mais taxu ngir eh, yàq wala ngir pervertir ñu ko ci tubaab xale yi mhm. au contraire voilà donc mu nekk mbir moo xam ne am na solo parce que euh, communication beeg sensibilisation bi daf ci am solo pour que nit ñi xam ne CCA yi au contraire dafa nekk ay euh, bërëb yoo xamante ne dafay jàppale xale yi di leen sensibiliser euh, ci wàllu ba tey Covid bi wax nga ko léegi donc dañu ci ñëw ñu gis ne am na ay problème yu bëri yoo xam ne jur na ko ci yenn activité yooyu te yéen yan jafe-jafe la leen di la leen Covid bi andil bu weesoo fréquentation bi wàññeeku taux fréquentation bi wàññeeku euh, lim ñu gën a jafe-jafe mooy partenaires yi nga xam ne amoon nañu ay relation ak ñoom waroon jàppale ak ñoom ñu waroon gën a jàppale CCA bi ci liggéeyam partenaires yi bari dañoo retiré wu ndax période Covid daanaka secteur yëpp dañoo seen liggéey dafa xawoon a taxaw. Mhm. am na ay promesses yu ñu amoon ci ay partenaires yi ñu waroon jàppale ci suñuy activité loolu yëpp dafa mujj nekk tombé à l'eau donc mujjul antu. ba tax na fi nekk nii ñun pour ñu jógaat pour ñu jógaat tàmbaliwaat demaat yi ñu doon def wutaat ay partenaires pour ñu jàppale ñu ngir liggéey bi mën a gën jëm kanam euh, fi mu nekk nii suñu produit yi ñu doon liggéeyee yépp dafa dafa dafa jeex surtout sage-femme bi ni nga xam ne mu ko doon liggéeyee di ko jàppalee xale yi jigéen ñi ñëw consultation parce que soo ñëwee consultation mu war laa seet war laa bindal ay garab euh, wala jox ay garab su amul garab dafay obligé bindal la ko. Mm-hmm. te xam nañ ne CCA Guédiawaye dafa nekk ci banlieue. fii dafa bari famille yi nga xam ne dañu nekk ci ci ci ci coono. donc xale bi ngay jëndee ordonnance fu mu dem jënd na du am lu mu ko jëndee mm. am lu mu ko jëndee donc CFEA bi dana soxla partenaire ñu ngi ko dimbale ci ay produits yoo xam ne nañu mën a dimbalee xale yi ndaw yi ci seen mbirum faj waaw mm-hmm. beneen bi aussi mooy au niveau de laboratoire bi aussi suñuy produits yi nga xam ne mën nañu defee analyse comme sëriñ bi ak yu mel noonu yooyu dafay dem ba day am rupture ñi ñu doon jàppale ñoom itam même chose dafa am dafa dafa taxaw te ba léegi dafay indi jafe-jafe ci suñu continuer suñu liggéey ci ndaw ñi la mu waree waaw. mu nekk lu am solo tey jii euh, par exemple aussi ci wàllu produit yooyu yaa ngi koy wax sànq sage-femme bi dafay obligé di bindal xale ñuy dem. Mm. donc te day wóor day leer ne peut-être parfois xale bi sax du mën a peut-être dem ci pharmacie bi dem jëndi ko walla dem feneen jëndi ko parce que parfois aussi le regard de la société la ñuy daw ak yooyu loolu yëpp a ngi ci aussi. loolu yëpp a ngi Euh, ba tax na daal partenaires yi moom suñu mënee jàppale bu baax daal. Euh, taxawuñ ci wàllu produit yooyu dina ci am solo torop torop mhm. torop au niveau de Wakhinane Nimzatt mu nekk euh, kon kii bu mag commune bu mag boo xamante ne mu ngi nekk ci Guédiawaye mhm. Guédiawaye nekk aussi diwaan bu mag département bu mag a mag boo xam ne mbooloo ba fa nekk bari na macha allah. Mhm. tey centre boobu kese moom moo fa nekk di toppatoo ado yi wala am na yeneen démembrement waaw comme centre conseil Euh, bii rek moo fi nekk moom sax dafa nekk centre conseil boo xam ne dafa polarisé Guédiawaye ak Pikine mhm. ndax ca sosaanam centre conseil ado de Pikine la woon ca jamono yaa ngi koy sos xam nga boobu Guédiawaye nekk loon département Guédiawaye ci département de Pikine la bokkoon mhm. ba ñuy érigé département euh, Guédiawaye à département aussi amul beneen CCA boo xam ne créé nañ ko mhm. ba tax na CCA bi moo nekk CCA bu Pikine moo nekk CCA bu bu géejawaay donc champ champ d'intervention dafa xaw a large dafa xaw a large mhm. mairie yi wax naan nag suñu partenaire bu jege parce que ñoo moom dëkk ñoo mhm. dend mhm. commune am lañ nekk wax dëgg yàlla am nañu ay ay waxtaan yu ñu tàmbali euh, am nañu waxtaan yu ñu tàmbali yoo xam ne yi ñoom dinañu fas fas yéene nañoo sóobu ci liggéeyu lépp loo xam ne soxal na santé de la reproduction des adolescents et des jeunes donc taxaw nañ pour jàppale ñu ci liggéey bi ci loolu la ñu dox fan yi ci forme ay formation yu tàmbali ñu ngi suñu ci fekk suñu ci jàppale di ñëw di waxtaan di suñuy séance yooyu yëpp wax dëgg yàlla liggéey bi moom ñu nañ ko mhm. waaye nag dañuy ñaan mu nekk loo xam ne lii dafay gën a concrétiser wu ak ndimbal loo xam ne dina dina renforcer capacité centre bi renforcer ko sur le plan du personnel parce que actuellement su ma la nee assistance bi ñu yor ak assistante laboratoire bi ñu yor yëpp te des bénévoles yoo xam ne dañu ñëw volontairement di ñu mm. jàppale mais amuñu kenn employé wu leen. d'accord. donc loolu suñu si mairie bi jàppale wala yeneen a suñu si jàppale gën a dëgëral liggéey gën a gën a gën a yombal liggéey bi. Mm-hmm. waaw. Euh, su weesoo produit euh, yi leen di partenaires yi di jox en général produit yi ngeen doon utiliser fan la doon jógee à part yi doon jóge ci partenaires yi. à part Senelec Mm-hmm. xam nga CCA day travailler ak le CNRS. Mm-hmm. moom TPJ mooy suñu tutelle projet promotion des jeunes mooy suñu tutelle moom moo lëkkaloo ak CNRS ba nga xam ne suñu yenn euh, activité suñu produit yu bari CNRS moo ko daan financé. Mm-hmm. loolu sax ñuy continuer ba léegi avec la pharmacie d'approvisionnement dañuy def rek suñuy commande ñu livré ñu mais loolu tam dafa am quota. xëy mën na am quota bi aussi comme mën la suñu champ intervention dafa laal ci Pikine Guédiawaye mm-hmm. dina dem ba dafay am rupture li ko doon accompagner mooy partenaires yi nga xam ne daal nañu ñëw di jàppale ci liggéey bi di yokkal ndimbal li ci wàllu produit yooyu voilà donc mu am solo may fàttali mbokk yéen a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu am mbégte di ci waxtaan ak euh, Aïssatou Diouf euh, madame Thiam nekk coordonnatrice bu euh, CCA conseil donc centre conseil adoo jeune donc bu Pikine Guédiawaye waxi naan Nimzat donc la nekk tey ji ñuy waxtaan ci li nga xam ne moom mooy ndaw yi. ak tam santé de la reproduction ak aussi ñoom ndimbal bi nga xam ne ñu ngi koy àndil xam ne ñoom ñooy kon xale yi à ce niveau sànq yaa ngi wax wàllu formation euh, bi ñu mm. demee démb macha allah ca centre ba gis nañu ni euh, foofu am na ay ndaw yoo xamante ne comme ni nga ko waxee sànq ñu leen di wax des pères euh, éducateurs donc mu nekk kon loo xamante ne dafa mel ni ay relais ngeen di def jël ay xale yoo xamante ne ñoom it dinañ mën a tolloo ak ndaw yi même génération bu ko defee mm. li nga xam ne moom mooy confiance bi gën a mën a taxaw waaw dëgg la ñoom ñoo ñoom ñooy suñu relais maanaam père éducateur yi ay jeunes la yoo xam ne la leen di tabb ci biir société ci biir euh, askan bi rawatina ci yi xam nga association yi sax ñoom ñoo yoree activité communautaire yi su ko defee ñun suñu àgg ci askan bi dañu jaar ci association yi tabb fa ay ndaw yoo xam ne yi sur des yoo xam ne nañ mën a ànd ak ñu critère de disponibilité maanaam il faut nga nekk koo xam ne da nga am jot il faut nga xam nekk koo benn niveau de niveau académique bu xaw a satisfaisant mhm. éducation niveau d' instruction bu satisfaisant il faut nga nekk nit koo xam ne kii ku am sutura nga il faut nga nekk nit koo xam ne kii ku am ancrage communautaire nga maanaam ku am ku sa communauté accepté ku fa am euh, yëg-yëg sa biir communauté mhm. donc ci critères yooyu la bi dal di leen formation en technique de communication ñu xam naka la ñuy waxtaanee ak askan bi ak mhm. ak ndaw yëpp wax leen ay aussi ay connaissance ay ci message yi nga xam ne moom lañu war dem ci wàllu santé reproduction maanaam ndaw li xam xam boppam euh, nga xam ne mooy wàllu ci njëram li mën a xam li nga xam ne mooy li ko mën a dal ay xam ngi aju butik juróom waaw loolu nag loolu la ñuy tabbee éducateurs yi su ko defee nag dañ leen di jël mm-hmm. formation yoo xam ne mooy jox ay jumtukaay itam yoo xam ne moo leen dimbale ci seen i activité de sensibilisation et d' information yi ñuy def ci biir askan bi mm-hmm. waaw ay ay support de communication lu mel ni ay affiche ay flyers mais aussi ay ay ay yu ndaw yoo xam ne ay message moo ci nekk yoo xam ne eh, dañ koy waxtaane xale bi pour xamal xale bi lu bari li nga xam ne ci santé de la reproduction yam ak santé mentale mhm. euh, euh, bi ñuy waxtaan madame Thiam démb yaa ngi may expliquer que ne centre bi aussi dafa am une vocation ci wàllu jeunes yi nga xam ne dañu am ay yenn addiction yeeg yooyu donc tey ñooñu seen prise en charge bi yaa ngi koy wax sànq wàllu psychologie beeg yooyu peut-être naka lay demee en général ak tamit euh, est-ce que peut-être di ngeen lëkkaloo ak yenn euh, centre yu mel ni par exemple euh, ñi ñiy faj genre addiction yooyu pour vraiment mën leen jël en charge comme ça se doit. loolu bokk na suñu liggéey. ndax xam nga drogue bi moom dafa nekk loo xam ne lii dafay yàq xelu xale. Mhm. dafay yàq xale yàq xelam yàq wér yaramam. parce que loo xam ne lii produit la boo xam ne bii soo ko dugalee ci sa biir yaram dafay dafay transformer lépp loo xam ne li mooy sa système nerveux central. su ko defee loolu ñu liñ cay njëkk def mooy dañuy waxtaan ak xale yi defal ay sensibilisation pour ñu baña a laal drogue loolu mooy suñu suñu rôle premier waxtaan ak xale yi ñu bañ a laal drogue ak lépp lu nuroo xeetu drogue. Mm-hmm. suñ demee nag rencontré xale boo xam ne bii mu ngi ci du soobu na ci biiru drogue ba am nu melokaan bi mu mel ñun dañuy lëkkaloo ak centre bu mel ni Jacques Chirac mu ngi fi moom tam centre la bu xam ne dafay liggéey ci wàllu toxicomanie bi drogue bi mm-hmm. waaw li aussi ak district sanitaire parce que suñu liggéey aussi centre de la République mooy ñun suñu premier partenaire institutionnel c'est le district sanitaire suñu lëkkaloo district sanitaire bi dañ fay transféré pour sa loolu moom mu continuer liggéeyu euh, liggéeyu hôpital bi yóbbu ko ci niveau nga xam ne moom moo ko gën a approprié mais daal suñu liggéey ci wàllu addiction pour le moment c' la sensibilisation l' information la prévention pour que les jeunes n'entrent pas en contact avec les produits. Mm-hmm. waaw bu xale yi laal lépp lu xeetoon drogue duñ ko ba ma fa ñëwee dem maa ngi waxtaan ak benn jeune mu ne ma moom dafay ñëw parfois aussi ci centre bi pour jàng pour réviser ay leçons mag yooyu donc mu mel ni c'est un espace boo xamante ne xale yi dañ fay retrouver aussi ci sax en dehors de wàllu santé de la reproduction mais ñuy peut-être jàng ak yooyu noonu. waaw ndax CCA dafa nekk ci centre bi ñuy wax centre départemental d'éducation populaire et sportive. Mm-hmm. chef départemental de la jeunesse moom mooy kuréel bi nga xam ne moo ko ministre de la jeunesse. Mm-hmm. département bi dans tous les départements du Sénégal dafa am. donc en dehors des activités de santé bi nga xam ne CCA moo ko porté. Mm-hmm. activité de formation d' éducation et des jeunes. ci yooyu am na fi ay section de formation yu ñu fi yu xale yi dañu fi ñëw fi def ay formation en informatique en couture. en euh, coiffure en électricité formation yu bëree bëri formation à des métiers de base mm-hmm. donc euh, loolu moo tax xale boobu ne moom dafay ñëw fii pour jàng am na aussi bibliothèque mm-hmm. bibliothèque bi dafay jàppale xale yi nga xam ne ñu ngi école la ay ouvrage euh, amuñu lu ñu ko jëndee su ñëwee fii SEDEPS bi lañ fee gis ouvrage yu ñu soxla donc ñu mun koo jëfandikoo pour mën a mën a def seen jàng ni mu waree waaw donc yooyu moo fi nekk yaa a une bibliothèque au CC au CEDEPS aussi les sections de formation mais depuis Covid bi aussi yooyu yëpp dafa dafa dafa dafa am ralenti mhm. parce que fréquentation bi ak arrêt cours aussi loolu moo tax démb sax fekkuloo fi élèves yu bare mhm. wàllu dépistage bi yaa ngi koy wax euh, da ngeen def souvent ay activités de dépistage yooyu en général bu ngeen ko defee Euh, par exemple lu mel ni VIH nga xam ne euh, parfois nit ñi dañuy ragal yooyu. Euh, mhm. est-ce que les jeunes répondent en masse est-ce que aussi ñu dul sax peut-être. parce que bon yaa ngi wax jeunes yi c'est de c'est vrai quinze à trente cinq ans yooyu donc mhm. tey ji est-ce que sax mag ñi peut-être dinañ ñëw parfois pour mën a dépister wu. waaw suñu defee strat li nga xam ne mooy stratégie avancée mooy ñun ñooy jóg fekki askan bi ci gox goxaan yi. Mhm. dem def foofu activité de mobilisation avec benn association mu mobiliser population bi ñu def foofu dépistage foofu moom dinañ am ay ndaw dinañ am aw ay mag yoo xam ne dañu ñëw pour xam seen statut sérologique mhm. su dee centre bi lu si bari li ñuy recevoir am na ay mag mais loolu ci wàllu mag ñi jigéen ñi nga xam ne ñu ngi soxla consultation sage-femme mhm. ñi nga xam ne am nañu au delà de vingt cinq ans dañ fi ñëw pour rencontrer la sage-femme waaw sinon au niveau CCA jeunes yi ñoo ci gën a ñoo ci gën a bari fii ci centre bi ñu fiy fréquenté. Mhm. à part que Thiem Dame laa. waaw mais au niveau communautaire moom y' a aussi bien des adultes am na fa ay mag am na ay ndaw. Mhm. yoo xam ne ñooy ñëw stratégie avancée bi ñu defal leen dépistage dañ fay yendu toute la journée ba ba ñuy jeex ñu defal leen seen kii jox leen seen seen résultat sur place. Mhm. waaw su fekkee am na fa aussi cas bu ñu identifier foofu dañ koy tout de suite mettre en rapport avec le, le médecin ou bien le, la structure santé la plus proche moom mooy assurer le suivi euh, le suivi sanitaire. Mm-hmm. waaw. Mhm. Euh, tey jii en tant que euh, coordonnatrice bu euh, centre ado donc mhm. ngay euh, jànkonteel tout le temps ak ay ndaw di waxtaan ak ñoom di lëkkalook ñoom di saafonteeg ñoom ci yenn yi mhm. j'imagine ñu def la confiance di wax ak yow ci yenn tey ban conseil nga mën a jox peut-être parents yi nga xam ne peut-être dañuy am yenn réticence pour waxtaan ak seen njaboot ci yenn question yi. foofu moom li ma ciy wax rek moo di bi erreur bu mag a mag la. Euh, boo xam ne parents yi bàyyiwuñ ci xel. Euh, dafa war ci ñoom ñuy encadré xale yi di waxtaan ak xale yi. Mm-hmm. Euh, ndax ki jiitu ci doom ci ci gone mooy waajuram. Mm-hmm. xale da koy toog di waxtaan na moom jege ko xam lan mooy soxlam xam lan mooy préoccupation yam mais du caag ne da ngay nekk xale bi rek. ngeen seqoo toog doog waxtaan wala toog lekk tali da ngeen di waxtaan mbiru àjjana ndax xale bi dafa war a màgg ëllëg nekk sa nawle mm-hmm. waaw loolu moom maa ngi ciy woo parents yi bu baax a baax a baax ñuy waxtaan ak xale yi dese mm-hmm. yaa mun naa ne presque rôle parent lay taxaw ndax dafay waxtaan ak xale yi di leen waxal seen seen bopp di wax seen ëllëg di leen préparer mbir ëllëg ñu mën a taxaw te rôle boobu parent bi moo ci war a jiitu parent bi moo ci war a jiitu euh, rawatina nag li nga xam ne moo aju ci wàllu santé de la reproduction muy wàllu wér-gu-yaramu xale bi xale bu góor bi xale bu jigéen bi yëpp mu aju seen wàllu njur ëllëg waxtaan la boo xam ne soo fu xale bi yeggee ci jamono joo xam ne bii euh, li ñu koy wax ne yegg na ci majorité rek waxtaanu nawle war na am maanaam parent na nag nag considéré ne nawleem la nekkal fi mu nekk nii di waxtaan ak moom waxtaanu diggante ay nawle mm-hmm. waaw loolu daal mooy li nga xam ne xalaat naa ne parents yi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax di waxtaan ak ñi ndax problème bi xale yi jànkuwante jamono léegi ji euh, agression sexuelle yi euh, maa ngi jégalu ci terme bi. Mm-hmm. Euh, ak yeneen violation des droits yi nga xam ne ñu koy subir seen intégrité physique intégrité mentale intégrité sociale partout mm-hmm. loolu yëpp ñàkk waxtaan moo ko waral. Mm-hmm. il faut ñu waxtaan ak xale yi. te centre bi loolu rek a ko tax a waxtaan ak xale yi yee leen gindi leen terew leen ci yoon woo xam ne bi yoonu mucc la ëllëg ñu mën a màgg ci anam yu sell. Mhm. am na lu ma seetlu aussi bi ma ñëwee au niveau du centre y avait pratiquement que des jeunes filles bu weesoo père éducateur yi ma fa fekk. waaw donc moo waral loolu euh, fréquentation góor ñi demeewu fa noonu wala. Euh, waaw démb ku amoon programme boo xam ne dédié aux jeunes filles la woon. Mhm. waaw programme bi démb jeune fii la woon. d'accord euh, mu wa nekkoon ci wàllu dépistage ak renforcement des connaissances des jeunes fii uh-huh. sur leur euh, euh, sur le statut sérologique ak leur santé de la reproduction en général. ñu uh-huh. nekk ci aussi boo xam ne dañuy nekk ci création lu ñuy wax club de jeunes filles. d'accord pour amener les jeunes filles à prendre en charge leur propre protection. Uh-huh. waaw ndax euh, euh, ni ma ko waxee rek yàq-yàq yi ci jamono ji léegi bare na kon xale bi mun loo ko topp fu nekk di ko teg sa bët wala di ko bàyyee xel il faut nga bàyyi ci moom xelam loo xam ne li ëllëg lu mu jànkonteel rek dina mën a xam taxawaay bi mu war a am pour moytu lép loo xam ne ay gaañ gañ lay doon ci moom mm-hmm. moo tax ñu bëggoon a organiser en club de jeunes filles nga xam ne ci seen biir dañuy waxtaanante di yeewante di di joxante ay message seen biir lépp loo xam ne lii ñu ngi koy jànkonteel jafe-jafe ñu ëllëg ñu mën a xam ñu koy taxawee di ca liggéey ñu leen defal ay formation a xam ne ëllëg dinañ dema nekk autonome nekk ay leader ay ay ay ay femme leader mën a yore seen avenir mhm. waaw loolu moo gën a waral démb ñu def journée boobu euh, déjee ko aux jeunes filles pour que vraiment ñu renforcer leen seen connaissance mais aussi gën leen a sensibiliser ci ni ñu war a mën taxawee lëkkaloo nekk benn benn forte ngir xeex lépp loo xam ne mu ngi nekk ay violation yoo xam mu ngi dal ci mhm. important li des ci émission bi bariwul mais tey jii nga ñëw ci wax nga déjà seen benn projet mhm. mooy centre euh, mooy club jeune fille bi nga bi nga tudd léegi am na solo mhm. est-ce que am na yeneen euh, perspective yoo xamante ne am ngeen ko surtout avec période Covid bi nga xam ne il faut conjuguer avec <laughs> le contexte donc lépp looy def rek foog nga sóoraale ci contexte pandémie bi waaw suñu yeneen perspective toujours dañ koy inscrire ci cadre yooyu nga xam ne koy former à part club de jeunes filles suñu former club de jeunes dañuy former beneen cadre boo xam ne bi cadre communautaire lay doon cadre communautaire boo xam ne parents yeeg euh, leader communautaire yi yépp dañ kay nekk ngir lan ngir mën a accompagner club de jeunes filles yooyu parce que club yi ci biir gox la ñuy doxee liggéey te pour ñu foog ñu am accompagnement euh, mag ñi seen i waajur yi autorisé leen liggéey bi leader communautaire yi nga xam ne ñun ci gox yi moo xam délégué de quartier la moo xam bàjjanu gox la moo xam ndeyu daara la moo xam président groupement de femmes la ku mu ci doon ñoom ñëpp ñu adhéré ci ñu leen a accompagné ci lépp loo xam ne ni ñu koy liggéey ci biir gox bi wàllu woo xam ne mag ñu war nañ cee man a taxaw ñu taxawee leen ko yombalal leen liggéey bi pour que ñoom tamit ñu gën a mën a euh, jël seen bopp à charge waaw loolu suñu projet la mettre à la côté des de jeunes des cadres communautaires pour accompagner ces clubs de mhm. nekk un pacte communautaire boo xam ne dañ koy nuyu bi ëllëg avec les autorités avec la communauté vraiment la la la préservation de de la santé de la production des adolescents particulièrement des jeunes filles. Mhm. donc le projet la beneen projet bi si dans le cadre Covid bi aussi mooy renforcer la formation parce que am na ñu njëkk a former ci jeunes filles dañ leen former naka la ñuy defaree naka la ñuy saabu. naka la ñuy defaree eau de javel naka la ñuy defaree masque pour que ëllëg suñ amuñu luñ dundee masque it mën nañu am morceau boo xam ne mën nañu ko jël fóot ko ba mu set defar ko masque takk ko. Mhm. wala ñu defar seen saabu euh, suñ defar si comme biir club de jeunes fii mën nañoo yoo xam ne mën nañu koy defar seen saabu seen eau de javel lii ñu jaay ak bàjjenu yi. ak ñëpp ñi xam ne ñooy autorité yi te biir gox leen ci benn jataay boo xam ne dañ ñoo jébbal xale yi. Mhm. li nga xam ne mooy yéen ko si bi mu woon produit yooyu sensibiliser waale la waale communauté bi pour ñu accompagner jeunes filles donc le le travail a déjà démarré li ci des rek mooy yeggali ko ba nga xam ne cadre communautaire bi dina taxaw le cadre d' accompagnement communautaire des clubs mm-hmm. donc mooy cadre cadre communautaire bi accompagner club de jeunes filles mm-hmm. donc nga xam ne mag ñi ñoo cay nekk parents yi ndax parents yi ñoom ñoo jiitu suñu suñu autorisé wul xale yi mm-hmm. ñu dem ci club de jeunes filles yi liggéey bi du yomb. dëgg la donc parent yi il faut ñu nekk ci cadre bi. délégué de quartier bi nga xam ne fa xale yi di yëngoo war na ko yëpp war na ci bokk ak bàjjenu gox yi ci koñ bi ak yeneen activité développement yi nga xam ne ñu ngi ci parce que mag ñooñu lañ ñu encadré xale yi ñu ànd ak ñoom ñu encadré xale yi ba mën a euh, def ci ñoom li nga xam ne moom la ñu bëgg maanaam préparer leur avenir mais aussi préparer leen à leur autonomisation parce que ci biir club bi nañ dem def ay formation euh, qualifiante yoo xam ne yi ëllëg dañu mën a mener des activités génératrices de revenus mm-hmm. waaw donc ça pour les pour les préparer à leur autonomisation d'accord préparer aussi des jeunes filles nga xam ne ëllëg nañu mën taxaw wax wax ak presse bi wax ak autorité yi ci li nga xam ne moo leen soxal ci seen wàllu wér-gu-yaram si seen wàllu euh, euh, avenir mm-hmm. en général voilà tey dernière question ban mooy message bi nga xam ne di nga ko wax à l'endroit des autorités comme plaidoyer pour peut-être ñu gën a jàpp daal ci euh, li nga xam ne moom mooy développement wu centre ado yi waaw sama message à l'endroit des autorités mooy vraiment un appel une invite à vraiment soutenir le centre conseil ado ñu jàppale centre conseil ado bi ci liggéeyam ndax euh, bokk na ci li nga xam ne moom mooy aar Euh, ndaw ñi nga xam ne ñoo yor euh, euh, réew mi ëllëg mm-hmm. yor avenir u bi ëllëg donc ñooñu dañu soxla leen préparer te centre conseil loolu mooy liggéeyam donc autorité yi dañ leen di ñaan rek jàppale ñu ci ay jumtukaay jàppale ñu ci suñu personnel ñu leen motiver suñu personnel parce que personnel bi ñu yor lu ci bare personnel bénévole mm-hmm. amuñu lu ñu leen motiver donc suñu dimbalee jël ay compétence yu mel ni assistante sociale yu mel ni assistante laboratoire ñoo xam ne euh, ñoom il faut ñu teew chaque jour ci centre bi pour yombal liggéey bu mel ni sage femme moo war nekk ku permanente pour prendre en charge les problèmes des jeunes fii surtout kooku dañuy ñaan rek autorité yi jàppale ñu ci loolu jàppale ñu ci matériel jumtukaay ba jàppale ñu aussi pour extension du centre parce que fi ñu nekk ni c'est à l'étroit ñoo nga fi démb mm-hmm. dafa nekk bar boo xam dafa xat doon nañ soxla fu gën a yaatu suñ laboratoire dañ ko war yokk parce que on doit prendre en charge également le volet tuberculose parce que dafa am rapport ak VIH sida mm, mm-hmm. am nañu matériel boo xam ne le PNT moo ñu ko jox mais on a du mal à l'installer parce que amuñu un laboratoire fonctionnel pour prendre ce matériel là en charge mm-hmm. ñu war a construire euh, un laboratoire beaucoup plus euh, euh, fonctionnel avec tout le matériel nécessaire te loolu ñu ngi ci yaakaar autorités yi surtout les autorités municipales ñu jàppale ñu ci ngir que centre bi gën a mën a def liggéeyam. ñu mm-hmm. jëm kanam. voilà donc ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, madame Thiam Aïssatou euh, Diouf. ñuy wax ni yow yaay kon coordonnatrice bu euh, centre euh, conseil ado jeune bu euh, mm. kon Pikine bu Guédiawaye Pikine mm. donc amoon mbégte tey di ànd ak yow ñu may la nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi waaw di bu baax soxna Alimatou mm-hmm. invitation bi encore ci remercier bu baax liggéey bi ñun nga ko defal ndax ñun CCA dañu soxla lu mel nii ngir nit ñi xam liggéey bi nga xam ne ñu koy liggéey. Mhm. population yi mën a wóolu itam CCA bi bàyyi xale yi ñu mën a ñëw di jëlee fi li nga xam ne mooy seen njëriñ. Mhm. Euh, di la jaajëfe bu baax di jaajëfe réew mi FM. Mhm. ci taxawaay bi ngeen di taxaw di fas yéene nag am yéene ànd yéen fu ñu toll suñu activité. Euh, di yóbboo ak yéen yéen di ñu defal lu mel ni ñuy yeggale suñu liggéey fi mu war a yeggee. Euh, di encore une fois di leen remercier. di la jaajëfal encore une fois madame Thiam donc di amoon mbégte tey di ànd ak yow di jaajëfal itamit euh, auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñu doon teewlu di leen dig daje vendredi ci benn numéro ci seen émission SOS santé jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf Alimatou di jërëjëf aussi tous les auditeurs de Rewmi FM. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup.